ànd doog ki nga xam ne moom moo di Simon Sène Simon nuyu naa la. fay naa la Boubacar Diallo sama mbokk maa ngi fi rek. mbaa yaa ngi ci jàmm. Euh, da ngay def sa anniversaire euh, ca théâtre national Daniel Sorano le vendredi 15 juin yaa ngi ci ñaata anniversaire. quatrième anniversaire Boubacar quatrième anniversaire. waaw waaw quatrième anniversaire bi moom naka lay tëddee. waaw ni muy tëddee ba Boubacar mooy maa ngi woo Sénégal yëpp. Mhm. surtout sama mbok séeréer yi. Mhm. Eh, di woowaa TFM. Mhm. ñoom sax ñoo couvrir yëf yi. Mhm. parce que suba dañ ma war a maye podium bu mag à benn tali. suba da ngay maye podium bu mag. benn tali boo xam ne ànd ak Dakar na door paa. day ànd ak Dakar na defee ma ak ak Amina Poté yëpp fa la ne. man yow Amina Poté ñu def ko en.